jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam ne yéen a baaxoo ànd ak ñun tey ñëwaat nañ fii ci seen entretien seen entretien nag buñ ko waxee euh, seen entretien dañuy faral di génn dem di fekk ji ñi nga xam moo di ci askan wi tey ñëwaat nañ ci kenn koo xam dañ ñëw daa nañ fi ñëw miin nañ ko muy sëñ Ismaïla Mbacke sëtu imaam sëñ bi ginnaaw bu ñu la nuyoo ñu ngi lay ziar ci li nga xam te moom moo di jamono ji. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi nuyu mbokki jullit yëpp. di nuyu mbokki taalib yëpp di ñaanal Cheikh Mamadul Muntaxa al Basiru sunu boroom yàggal ko lool mu ànd ak taalibi sëñ Tuubaa yëpp di baalu àq ñëpp nag di wax ne tey kàddu gi kàddu gu gu war la kàddu gu ñu goo xam ne neexut a génne te it mëne su ko ñàkk bañ a génne symbole bi ñu leen ci wan rek mooy dëkkub sëriñ Touba bi nga xam ne dëkkub yaakaar la dëkkub yërmande la euh, boo leen gisee lii ma sol war ngeen a xam ne ab symbole laa ci jublu ab symbole mooy bu jamono doon baax lii ma lii lii nga xam ne mooy nekk ci biiru biiru biir biir biir yére bi moom moo waroon a nekk ci kaw bu demee ba lii nekk ci kaw nag am na lu muy am na lu muy wax loolu mooy lan ñàkkum ndox mi ci dëkk bi ndax lii bu tilimee ma ne su ko génne ci biti muy nekk ci kaw kon nag symbole boobu lañ ci jublu mooy dëkkub Serigne Touba bi dëkkub yaakaar la dëkkub yërmande la dëkk bu sell la bañ nañ ko ba ñuy wax tuubaa dëkk bu sell ba la ñuy wax dëkk bu sell ba nag buñ koy wax te nit ña fa nekk amuñum ndox loolu doy na waar yërëmtulu na ruslu na bu doon ci ay ay ay ay gox la am yoo xam ne danga naan quartier ci sàngam dañoo am problème mu tiwo moo tax foofa lañu war a dépanner waaye Touba gépp la dem nañ ba ci bërëb bii nga xam ne néegub yàlla la sëñ Touba li fi nekkoon lépp lim gënoon fonk mooy néegub yàlla bi day manqué ndox dem nañ ba li wër jumaa ji kër Cheikh Mamadou Mourtala googu rek mënees na ko mooy li wër jumaa ji foofu sax fan yi yëpp amutoon ndox bu dee ci ñun ñi nga xam ne dañoo dëkk ci liñ tuddee boo rombee corniche bi ñun daanaka avant màggalu Tuubaa lañ amoon problème mu ndox ba màggal gi weesu ay weer amuñ problème mu ndox nga xam ne day mel ne Tuubaa léegi programme bi daa yegg ci maanaam ñàkk ndox moom lañ gën a moom lañ moom moom ngay gën a jëmmal sax ci am ndox nga ne boo amee ndox sax day mel ne dañ laa jox adduna la la ci biir loolu nag dafa am yu ko am na fuñ ko leeraloon waaye danañ ko gën a leeralaat sëriñ Moustapha Jàng lañ jox liggéey mu teg ko ci loxoom ak ko sëriñ naam sëriñ Abdul Xadir waxoon naa ko waaye li may leeralaat mooy ñoom ci seen bopp nanu sagalaat seen bopp tuuti waaye sagal sëñ tubaa waaye sagal Cheikh Mouhamadoul taxa ndax sëñ Touba damaa gis murit yu bari dañ naan ñaanal ma ay milliards ma mën a liggéey suñ Touba ku naan naan ñaanal ma ñaanal ma ñaanal ma yu bari waa ki nga xam ne danga am sansu nag ñu dénk la dara ci Touba war nga cee mën a liggéey sëñ Touba liggéey bi nag mooy nga sagalee ko sëñ Mountakha ndax dem nañ ba yëf yi kat bu ñu tudd jaaratuñ seeni tur yéen waaye nit ñi fi ñu toll fi mu ne nii fàtt nañ leen waaye baat bi ngeen di dégg ci internet bi wala ci euh, ci internet bi mooy sëñ Muntaxa dimbale nañu ndox lañu kon jéggi nañ leen fa léegi dem nañ ki nga xam ne nii waruñu woon a dégg dëkk Tuubaa di jàmbat di ko jaarale ci ku mel noonu nga xam ne mooy suñu symbole mooy suñu kilifa mooy suñu yaakaar kon war ngeen a sagale sëñ Muntaxa ba nga xam ne ni lii nuru ay lu kenn xamut te kenn mënul koo layal ndax na ma ko waxee woon koo xam ne nii bërigoom ndox bi nga daa jaay bu njëkk 4000 nga ko daa jaayee dem ba ci yàgg nga koy jaayee 5000 francs yokk ko c'est par semaine ngay am 6 million wala 7 millions loolu bu dee at mu ne ñaata la war a doon kon pompe yi fan la wala fan fan comme pompe yi naan daa pan lu koy pan dañoo dañoo wutut lu baax wala lan. ndax loolu firndeel na ko seen ndaje mi ñu doon def démb rek nga xam ne dix heures lañ tàmbale bay ne daanaka man nga ne lu ci ëpp waxtaanu gone lay doon ndax waxuñ fa wax ju ju concret am na ko fa laaj ab xalaat kuñ naan Mortada lam leen laaj ñoom dañ caa war a tontu te xam ne dëkk bi dëkk bu mag la doonatu dëkk bu ndaw ci bépp fàll fan euh, bépp côté boo jëm rek la ngay daw ngir mën a génn Tuubaa rek war ngaa xam ne ndakaar gi ñu tuddee capitalu Sénégal ah, day ab capital rek waaye bu tubaa doxee tuuti du toll Touba fii comme ku ñu naan deuxième capital di senegal askan wu toll noonu toll fa 37 forage nekk fi ñuy am problème mu ndox ah, ah, sagaluñ suñ bopp waaye sagaluñ suñ Touba waaye sagaluñ suñ Muntaxa te nag yenn yi nag ay lobby da koy waral. li dal Macky Sall dañoo dal lenn nag ndax euh, am na ñoo xam ne nii xam naa leen damay bañ di tudd tur mu noonu ak par parlo moo tax duma ko tudd waaye am na ñu ma fa xam ñoo xam ne ñenn ñi ñuy defar lañ waaye nag bu fekkee ci biir maa googu luñ tuddee station dafa ne ba nga xam ne am na ñoo xam ne sax dañu ñoom gaare seen dañuy gaare seen oto jàppee ko station sel wala dara ngir fa la ñu fa la ñuy seeni la ñuy ndox wala ñu fay jëlee xaalis bu ñuy mën a du duyam ndox kooku du mën a wax wax ju yegg jee yeggale suñu kilifa yooyu nag bu amee te bëri ñu ko cay def ndax euh, tàmbali maa wax la buñ demoon ba ci biir des dees na mën a leeral nag waaye waxtu wi du waxtu leeral junj la ñuy def rek ngir xam ne xam nañ lépp seen ndaje yooyoog yooyu ñu ci doon defak ak yëpp xam nañ ko détail yooyu waxtu wi waxtu soxlawuñ coow liñ soxla mooy ñu defaral ñu lii Touba kenn du ko régler su soixante-douze heures tubaa ëpp na loolu liñ war a def mooy téew yi ñu tëj ñu bàyyi ko ndox mi ñuy jaay bu munta ñàkk te nit ñi ndox mu neex lañ bëgg ñu wàññi ko ba ba mu toll ci poosu nit ñi liñ toroxal nit ñi doy na waruñ cee mën a teg leneen dem bay jaay nit ñi ay bari ko bu fekkee ñoom dañoo bëgg tubaa ñu di jaay ndox dañ ñu ko wax kër gu ne weer wu dee sax ngay fayal sa bopp moo tax ne lii ñu ñuy def lii toroxal nit la surtout nit ku munta wax nit koo xam ne ni saa su yëngoo nga ne pas-pasam daa ko daa ñàkk pëstéef daa nangam ak nangam fi ne bu nit ñi jugoon yore seeni séew ak li aw ci mbedd yi ñu ne dañoo amut dañoo amutu respect waaye sëñ bi ab jullit ndox moo war a jiitu ci moom ndax ndox lañ koy waajalee buy ñëw buy dellu ndox lañ koy waajalee kooku bu ko ñàkkee fu mu jëm kon nañ xoolaat yëfi yi buñ demee ba ñi nga xam ne ne dañoo wujji seen mborom mu ngi leen a waajal ngir am ñàkkum ndox sakkantuma ak liir bi gën ci jamono bu ñu wutee ndox muñ ko war a waajalee sax dañ koy lijjanti ji li ñu war a wax bëri na nañu xoolaat li ñuy def ci turu nag ASD ma ànd saxal dëgg ñu mën koy wax ci baatu wolof kuréel boo xam ne day taxaw mënees na ko wax alxaq sabit ci lañuy waxe ànd koog sëriñ Ahmadou Sougou Tasrif muy mouvement boo xam ne fii la nekk ci dëgg bi lépp loo xam ne nii gis nañ ko te teguwut ci yoon te ñu mën caa wax ba mu saafaro ñett yi yonent yi waxoon nañ ko lañ koy defee wax ci wala xeex ci wala wax sunu kàddu ba ñëpp dégg ñu ba ñu xam ne bu ëllëgee ci biir dañuy xam ne ñun teel nañoo dawal suñu responsabilité pourtant am na sunuy baay yu fi ne wala sunuy maam lii naqari leneen xëy na dañoo munta wax waaye ñépp la naqari ndax man ndox moom bu manqué melut nepp état nga xam ne daa am ñii dañuy am ñii ñàkk fépp lay manqué sagal leen ñooñu sagal leen taalibe sëñ Tuubaa yi nekk ci dëkk bi waaye nag ngeen sagal seen bopp ndax li gàcc la nit nag bu fekkee jox nañ la te mënoo da ngay démissionné tubaab yi faw liñ naan tubaab amul solo am na solo wala na ko man di roy sax ci yenn yi tubaab bu yoreb liggéey xam ne mënul day démissionné waaye ñun ay privilège ay privilège la ñuy gën fi ne ne waaye nit kuy wut privilège ba dëkku sëñ Tuubaa bi sax nga ciy wutaate ay privilège fàtte nga sëñ Tuubaa te loolu du ngor mooy nit ñi fii dafa bari sañcaan waa ki amut lu mu lekk bu ñàkkeem ndoxi nu muy def dem ba yow ndox loo lekk amoo ko da koy wëri da ngay wëri yore ay peel nekk ci dëkk bi tumuranke di sonn boo demee ba amoom ndox moo moo moo mooy naan ñaari coono ñëwal na la dañ leen di sóoraale neex gi du liy wër corniche bi rek wala environnement dëkk bi wala ci ay personnes ay quelques nit ñoo ne ay privilège lañ ñu xamuñ àdduna àdduna kenn du ko toppee noonu privilège muy sa jëmmi bopp daal nay naat fi nga nekk environnement bi nga nekk nay naat yow danga am ay certain bërigo yu mag yoo xam ne nii yow ndox day nekk sa kër du manqué yow daal li fekk dara manqué wul raag amoo problème ku ko yore dëkk ku ku jàpp ne noonu la ab am a doxee wala ab dëkk bu mag yow wareelu su laa dëkk sa kër sax wareelu su la ko dénk kon nañu seetaat suñu bopp ci sagal sëñ tubaa mii saggi sagub sëñ tubaa nag tàmbalee na ci nit ñi bëggum ndox te munoo leen ko jox ndax man kaana yuminu billahi wal yawmil aaxiri fal yukrim day foo waa gan yi buñ ñëwoon loolu sax am na amati màgg duñu amum ndox muñ sango loolu gàccaal sëñ Tuubaa la ay problème euh, moteur la ñu am la ñu wax ay pompe waaw pompe yu duñ dem wut pompe yu baax nañ bàyyi deuxième mais yi ñuy wut ak pompe yi ñu wut ñaari fan ñett mu yàqu dégg naa ko ci kenn ku ko àddu foofu nañ def tour de table waxtaan te bu ñuy waxtaan kenn bañ a xool intérêt xool ne fi mu ne lii ñuy pousser nit ñi danañ si excédé ndax li nga xam ne la ñuy waxtaanee ci biir kër yi ci biir néeg yi dem ba ci yàgg ñu génn ko ci ëtt bi ci kanam tuuti ci mbedd mi la jëm mooy li ñu dal ci wàllum politique mi heureusement nag it sax nag loolu dañ koy waxaale ci politique bi Macky Sall weer na fi boppam loolu alhamdulilahi rabbil alamin dama daa yàgg wax ne sama xeex man tàmbaliment ba boo koy door di ko dégg da ngay jàpp ne dama daa da dama am lu may contesté waaye benn personne benn personne bu jàpp ne sa jëm ma tax ma may may wax yoo xamoo fi may waxee bu doon sa xottu jëmm rek man awma lu may wax ak yow waaye li nga yor te ñëpp bokk ko nag ah dees na ci wax nag looloo tax Macky Sall dégg ngeen ci biir waxam ci euh, bi mu dajeeg journaliste yi daal di wax ne kilifa yi diine yi wax nañoo ak moom kon daa nañ wax ak moom loolu it sant nañ ci yàlla ndax dama daa wax ci samay biir wax ne dañoo bëgg a jaxase taalibe sëriñ si ngir ay pas-pas lañ bëgg di dindi te loolu leer na léegi kon na ñëpp jël seen responsabilité xam na état bi nu muy doxe moo ko bëgg a doxe waaye du du du du kilifay diine yi foofu nag la tax mu dem ba darñeel bi moo wax ko yàllaa ko bëgg a weer jublu ci ay waxam sax yàllaa ko bëgg a weer leer na ko ne waxoon naa ne sëñ Muntaxa ku set wecc la ci fii mu toggee dul lislaam amu ci yàq amu ci defar man nag damaa taxaw ne man sama kuréel bii ma taxawal mooy ASD luy sagal sëñ Muntaxa bu ma sañoon mooy génn ci man billaahi wër na ma ci sëñ Tuubaa ne ak la ci biir sagal sëñ Muntaxa ak delloo ko njukkal ndax ku ko delloo njukkal sagaloo ko danga ko ameel bor topp na njabootuk sëñ Tuubaa gi bañ jóge fi mu topp ay magam bañ jógee fi mu taxaw toog jataay boo xam ne lim fi liggéey doy na war université bi rek doy na bëgg na ne te loolu ay wax la xam nga sëñ Muntaxa faw nit ki nit ñi di jàngal ay waxam discours bi lu mu gudd gudd wala lu mu gàtt gàtt nañ toj li mu bëgg a wax boo xoolee sax bamtu la ciy dem ngir yéene xam nga ne ko taxawal lu mel nii bëgg na ñeneen ñi ñëwaat bu ñu liggéey liggéeyee xam-xam waaye nag dëkk bi dañ ko war a génn nag ci wàllum wàllum nit kii rek nit ki laa xam rek mu yore dara boo ko joxee ku xamul dara du da du doxal dara wàllum ndox dafa am ñu ko jàng mbir ki ko jàng ko nga koy koy jox mu téye ko man caa génne xam-xam. waaye buñ ko bëggee tegee ci mi liñ tuddee bu njëkk xale yi diñ daadu naan koñ ak koñ rek moom laa xam rek moo fi ne erreur yu bari la indi boo boo xoolee ba ci wàllum maire beeg yooyu sax ci carte dant yi da ci am ay erreur yu baree bari yooyu loo ko yu koy indi Touba loolu dafay bëri maanaam ay dafa bëri ay erreur te taalibe yi buñ jugee bëgg a wax Pastef da ngeen a ñàkk Pastef waaye ñii di manifester wu ci wàllum ndox mi muy soxna yi yore paan ak yooyu waaye bu ñu doonoon mbooloo génn ci mbedd mii di ñaxtu nu nuñ leen war a maanaam leen a war a sànni xel war a dañ leen war a dóori jaasi luñ leen ci war a def loolu bu dee boroom xel mu gudd nga danga naan tekk diglu leen parce que ñoom daleen leen dañoo dem ba sës waaye bëri na ci njabootu sëriñ bi ñu nekk di dund lu mel noonu mu metti leen te mënuñ ko safara kon nañ sagalaat suñ bopp sagal gi suñ bopp mooy sagal sëñ Tuubaa ndax sëñ tubaa saa ko soo ko sagalee sagal nga sa bopp te dëkkam bii rek la am te waroon nañ fee doy lu ne lu dul ñàkkum ndox kon maa ngi lancé na un appel di waxaale ne président Macky sàll miit ngeen di diglu parewut pour taxawal dara la mu nekkoon ba léegi ma nga ca yéen nag li ngeen nekkoon ba yëg ne mi ngi feebul boo leen ci tegg seenub tànk mukk bu leen ci diglu kenn moom leeral na ay waxam kilifa yi diine yi wax nañ lañu war a wax liggéey si des nag mooy am réew population ba ñoo koy saafaral seen bopp xeex boobu ngeen doon xeex bu ko kenn bàyyi waaye xeex leen ko ci ngor ak ci discipline ak ci euh, patriotisme lañ koy waxaw ma na ngeen ci xeexee noonu dialogue bi day man li ci ñépp wax laa ci wax dafa yàgga wax mbiri dialogue moom li waa ji doon genn ki góor gu xor mu doon wax fan yi maa ngi koy seetaan nee na léegi-léegi sax mu gis ay fóotkat ñuy fóoti bu kenn tuuree paan gi te waxtu moom ko waroon pour tuur jotu sax mu ne kaay leen ñu dialogue dialogue dafa ko dut am réew réew xam nga lu koy defar ay constitution si réew mi sart yi ñu të tëral ne lii ku ci jaar fii lañ lay teg lii ku ci jaar lii lay fekk nga xam ne lii mooy sarti réew mi nga respecté ko xam nga lu mu war a def douze ans ci état ku ko def nguuru ci nguur moom dama koy xamal ne nguur gudul yàlla dana jeex mu jéem a xool jéem a jaar grande port te bañ a gis ñu koy di digal lu koy li koy li lu koy yàqal parce que ñi koy digal lu ko yàqal ñoo koy dugal te bu dee nit a nag te am expérience su politique war naa xam ne gars yi dañ koy dugal parce que yëf yi jeex na lu doon ay at ba ak ñu ne 40 jours ci des war ngaa xam ne jeex na 40 jours yooyu rafetal la ci des ngay gën teg ay ndëggi sarax ak ay jalo kenn jalagu fi li wër tuubaa gi ci ay turu ASD ñun demuñ fenn di jalo gi maa ngi koy digal sénégalais yëpp maa ngi koy digal bépp politicien koo leen gis mu ne day jalo gi ci système bi la koo leen gis rek mu ne dafay jalo gi ci système bi la moom li mu war a bàyyi mooy diito déetoni politique yi mu génne leen ci biti parce que gis nañ ne ay xale yu am 500 sax wala 600 lañ jàpp sëñ bi gone gu toll noonu nga koy miinal ay koso gis ko jàmmal ak lu bon loolu loolu sëñ bi Macky fi mu ñu yóbbu ci recul démocratie dafa jéggi dayoo dafa ñaaw faw ñu koy wax léegi-léegi damay gis ñu xoromu nag taragal ayi moytul ayi peut état daa bon état lu man ñi li man mi ngi koy def ñëpp di loolu bu egsi woon ci man ni damay xam ne <laughs> def na ma ko di ñi ñi mën a rey ñi ngi leen rey ñii tëj ñi ngi leen tëj man nañ may jàpp tëj ma wala ñu rey ma dong loolu dong la du dara nag bàyyi leen ragal gi gis nga ragal sunu borom rek lañ ko war a def ragal gu ëpp nag looloo tax ñu ci baree bari mënuñoo wax gis nga yàllaa jo bakkan moom suñ borom rek ko moo moo ko moom dee fu mu jotee xalaa kulli xaal na nga dee boo ko doon daw fii ba siin yaakaar na da danga koy raw mën naa am suñ borom fa la la ko waajale bàyyi leen ragal gi xeex gi faw ñu jéem a xeex lii mu jóge fi waaw loolu nag maa ngi koy digal Sénégalais yëpp hmm. di jéggalu bu baax nag di wax ne lépp luy sagub suñ Muntaxa ñun ñu ngi ci ku jàpp ne suñuy wax tourné nañ ko ci kenn wala ñu jëmale ko ci jëy na jëmm maa ngi lay waatal ci sëñ Touba ne xamoo suñuy wax ñun bu sañoon dëkkub sëñ Touba bi saafaro te bala ñoo xam ne li ñuy xeex njariñul kilifa yi la ak njariñul population bi mooy ñu dem ba ci kanam ndax waxtu wax wax dafa jafe saa soo waxee nag ñenn ci yenn ci bu ay borom yi dara yoo xam ne dañuy xëy di xëy nekk ci këri kilifa yi diine yi defuñ fa lenn lu dul sol seeni mbasin di yàq deri gor yi ak di jaxase mbokk yi loolu lañu fay def ñooñu xamuñ dañuy jaxase mbokk gis nga ñun suñ jëmm yi sëñ Moodu mu sëñ Abdul Xaadir dañoo tàggat ci doylu du ñu dem di dunguru kenn du ñu dem di sàkku ci kenn loo xam ne nii maanaam daray adduna dudut lii sëñ Tubaa cërale di ko joxe jox nañu ko leneen li ci des nag fesi wu ñu du ñu dunguru du ñu yàq deru kenn ñu ngi sunu kër li ñu amit doy nañu bu dee wax dëgg it mooy tax ñu jàpp ne dañoo offensé kenn benn personne bu yàlla bind bu taxaw ñuy ñu lay attaqué billaahi ne ci man bu ma sañoon njabootu Sëñ tubaa gépp ci jàmm la ñu ne képp ku yore dara ci dëkk bu ma sañoon ci feex ngay ne ak ndam loolu nag day am ñooñu di def yooyu nag nekk ci këri kilifa yi du wax këru kilifa këri këri kilifa yi di jaxase sol dañuy xëy sol seenu mbase bàyyi seenu kër dañuy sol see dañuy xëy sol seeni mbase bàyyi seen i kër dépasse ba ñuy joxe seen i kër ñu xeeb dépasse boobu di añi këri jàmbur ñooñu nag du ñu wax lu rafet du ñu wax lu baax loolu nag lañu war a dakkal gis nga mbir yi faaw mu soppeeku kilifa yooyu it bañ a am benn nopp ku ñëw ci ñoom yëkkati kaddu ne diw sangam diw sangam diw de nangam nga jàpp loolu yow matoo kilifa parce que kilifa bu matee kilifa nit du ñëw rek ne tàñña nga ay wax ci yow nga jàpp loola man bis bi ma demee ba xam ne sunu borom mii moo ma sakk bu may dee moo may moo moo bu may faatu it moo may moo may moo may faat sëñ Tuubaa mii doy na ma ci sama borom samay jëf it leer na ma ci yàlla mënumaa matal sama dugg àjjana ca laa xam ne lépp bàyyi naa ko loxol suñu borom waaye dëgg jii muy dëkk sëñ Tuubaa bi mun awma doole ju ma fi mën a defee dara waaye sama kaddu gi am naa ko li feeg maa ngi am sama kàddu gi loolu yonent bi waxoon ñett yooyu moom danaa ko jëf sama kàddu gi nag fu mu mën a egg danaa ko fa yeggale wasalaamaaleykum wa rahmatullah